léegi rek lima wax ci wolof gannaaw bu ñu ñu ñu seetaan ñu xam président de la république jël na ay mesures yoo xam ne ni dafa ak situation actuelle xeex bi ministre des transports a jël ay transport pour dëppale léegi exploitation bi nga xam ñu koy def ci transport ak li nga situation actuelle bi ñu ngi saluer bu mesures yoy nga xamné président jël na di rafetlu aussi mesures yi nga xam ministre de l'intérieur jël na ko pour arrêter liñuy wax transport interurbain de voyageurs lolu nak liñ ko mëna félo ci mesures yooyu mo ñu jël ay mesures yu am solo ci exploitation bi nga xamné mom lañuy def ci euh auto euh, yi moo tax ñu né légui auto yi xam nañu dafa am ay carte grise yu ñuy affecté ay place ci auto yi moo xam auto transport privé la yaa xam transport public la mais oto bu nekk ci sa carte grise wax nañ la ne nangami place nga yeb place yooyu dañu koy wàññi à moitié maanaam bu dee oto boo xam da ngay def 35 place léegi 12 place ngay def wala lu lu lu lu wàcc ci wàcc bi bu dee oto boo xam da ngay def 20 place léegi 10 place ngay def bu dee 25 12 place ngay def bu dee 35 dañ koy diviser par deux ainsi de suite taxi yi nga xam ne aussi dañ nek taxi urbain di daw Il ci sen carte places autorisées taxi y compris place conducteur bi manam day jël ñaari client plus kuy dawal muy ñett auto yi nga xamné aussi ay transport public mais transport privé lañuy def nek auto 5 places ñoñu aussi mesure bobu dañ leen koy appliquer yeb ci sa lu bi aussi préciser auto yi dëppoo ak auto yi def transport public aussi te auto transport privé même mesure yi lañ leen di lañ leen di appliquer ñu wax ne aussi pour protéger citoyens yi ak usagers yi ak transporteurs yi kopp ku dugg ci auto buy def transport public wala transport privé ñaan nañu la pour nga def masque parce que loolu moo lay aar mooy aar ki nekk ci biir auto bi mooy aar aussi euh, askan bi beneen mesure boo xam ne am solo mooy euh, ci transport de marchandise bàyyi nañu xam nga transport de marchandise day wëy parce que président de la république wax na ko ci message bëggul ñu arrêté économie bi comme nit ñaa ngi dem di liggéeyi comme bi mu ngi dox normalement euh, transport de marchandise bi dafay continuer waaye terewul dafa am nag ay charte yu bees yu ñu ci yokk mooy gisoon nañ ne camions yi def transport de marchandise léeg-léeg dañuy am ñaar ba ñett ba ñeent ba juróomi nit yoo xam dañuy nekk ci ci cabine bi loolu aussi pour tenir compte ci restriction yi nga xam ne ministère de la santé jox nañu ko cabine bi léegi chauffeur bi moo ciy nekk ak ku koy assisté ba pare nag rax si ndool yi ne nañu euh, lépp loo xam ne nii euh, ay protection la yu chauffeur yi war a jël ak ki koy assisté dañ ko war a dañ ko war a jël matal ko sëkk ci gaar yi aussi gis ngeen ne gaar yi lieu de de regroupement la maanaam commerce administration lu nekk fay nekk ci biir gaar yi donc loolu tey euh, nee nañu dañu koy dakkal pour éviter justement regroupement yi donc gaar yi dañuy interdire regroupement yi fa nekk ak njaay mi nga xam ne dëppoowul wala en tout cas c'est pas lié au fonctionnement des gares ci autoroute yi wax nañu aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal autoroute yi ñu gën a góorlu ci cet gi ak cetal gi gën a protéger seen personnel di leen jox ay masques ak ay gants mais gis nañ ne aussi ci autoroute bi léeg-léeg dafay am transaction manuelle yu bare bare bare ci carte yi ñuy jokkalante mais aussi ci monnaie bi ñuy jokkalante donc loolu aussi wax nañ leen ñu jël ci ay matuwaay ba nga xam ne ñu koy def dañuy sol ay gants def ay masque ba transaction yi nga xam ne mooy nekk ci autoroute bi du indi ay tolof-tolof loo xam ne dina gaañ doomu aadama ci jamono yi ñu toll may wax na nag gis ngeen mesure yooyu yëpp ñu jël def ko ci benn arrêté tënk ko dina nekk lu méttee metti particulièrement fii ci Dakar nga xam ne Dakar euh, transport bi dafa xaw a sooxe maanaam offre de transport dëppoowul ak demand de transport bi nga xam ne moom mooy une demande très forte ba ngeen gis sax phénomène yi ci am yëpp développement taxi clandestin yi di am ay gare routière flottante di am léeg-léeg sax surcharge wala surnombre pour être plus précis di am donc loolu wax nañ leen ne euh, danañu ko xeex danañu ko dakkal woot naa ci police ak gendarmerie ak képp koo xam ne euh, yoon may na la kàttan ci loolu nga war ko xeex ba nga conditions yi nekk ay war gaynde ay allo Dakar ay euh, horaire yooyu yëpp dañ koy arrêté gaar endroits officiels yoo xam des endroits assainis bu am hygiène bu am sécurité boo xam ne la nit ñi di ñu ak parce que nag jamono moo laaj loolu aussi moo tax may demander ñi nga xam ne euh, transport nekk ci service de transport yi aussi aussi usagers

boo moytul juróom ngay am euh, te dinañ ko prévoir parce que def nañ benn comité de veille boo xam ne ni ñoom ñëpp ñu ngi ci biir AFTU ñu ngi ci biir syndicat transport ñu ngi ci biir euh, opérateur yaa ngi ci biir euh, usagers yi ñu ngi ci biir pour ñu mën saytu perte nan lay ci yi saytu ko ci AFTU saytu ko ci taxi AIBD yi saytu ko ci lépp ba nga xam ne allah comme président taxawal na kuréel gu mu ak fond bu mu force Covid 19. ko loolu bu ñu koy saytoo ba pare dinañ ko jox euh, ministre de l'économie jox ko ministre des finances pour ñu xool secteur bi nan lañ leen di mën a jàppale ba ñu sàmmonteeg li nga xam ne mooy tëralin yu bees yi xanaa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag lii ñu taxawal ñun ñëpp ñu dugal ci suñu loxo jàppale ci président jàppale ministre de la santé jàppale gouvernement bi ba nga xam ne li ñuy tiit mooy transport transporter virus Covid 19 bi du am incha allah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah